ci de mbokk de. pardon. jabaru nijaayam moo ko topp rek marquage nijaayam. waaw moo ko topp moom. waaw ana nijaay ja. nijaay ji day tukkee ko ñëw rek day dem ko ñëw chaque weer mu tukki ñëwaat. léegi ndaw si bëgg topp jarbaat no bëgg amul bëgg de mi ngi koy top ma nga ca kaw day dem ca néeg ba. waaw ñu baal ma ci kàddu gi waaye dindi ba dara du ko wër. waaw mu ne ko. li ma bëgg boo ko deful fii laay yuuxoon da ma doon siif. booy bi nee na am na benn jour dama ne ko yaa mu tàmbali yuuxu ma taf gémmiñ gi mu daanu jug dem yoon. waaw mais mais mais mais mais sama néeg ku fa ñëw naan ma maa lay siif. booy bi na jéem a arrangé li mu wax lii mu mu wax yanuwul maanaam sama néeg munoo fa ñëw naan da ma doon siif. non booy bi dane ko. soo ma ki waxul loolu laay wax. Ah. nañ ko déglu ba. jox damay nañ dem. man nag ah, dafa am loo xam ne si dama dund ma ndax damaa nekk ak sama jabar nijaay sama nijaay day tukki. waaye dafa nekk moom toujours bu sama nijaay tukkee ba ko fi bàyyee day dikk fekk mu si néeg si néegu daan ne su ma ko mu daal di dama ko doon violé te wax dëgg yàlla loolu doon na lu métti loo xam ne si wax naa ba soon mu bañ te toujours su ko nëwee tuuti damay wax sama nijaay ne dama ko doon violé te sama nijaay bis bu ko waxee loolu dina ma génnee kër te mën a moom ñu fi ma ne ko nag faa ma wax ma wax ak baan mu jàllale ma lii xalaas ndax nga mën maa mu ne ma bu ko wax mu ne bu boo ko waxee naa booy sa nijaay dem naa nag lii nag bis bu bis bu bis bu ma ko jaaralee déggee ma lii doon na lu ma métti trop wax dëgg yàlla. man tey li ma fi indi mooy sama papa dafa gaañu sama yaay gaañu. après sama nijaay daan may jël Fatma ma daal fay nekk loolu moom fa indi waaye moom toujours loolu la may loolu la may sant ni ma ko def loolu. def na ma ko trois fois an nag ndax yëpp am na benn bis daa dem ba yuuxu mën naa daaw fàttali mi daan ko wax d'accord naa. ndax sax gam naa su ko deful mu yuuxu te boobaa duma am lumay wax ndax xam ngeen jigen ak ak i pexeem <laughs> lool di am ci bir kër te mhm. am na ñoo xam ne indiloon nañ leen xalas koku tantaama ko sonal xam nga ki sax jabaru ni nijaayam la waaw am na ñoo xamante ji sen tante mo leen di sonal sen jabaru papa tay passé boobu amna ben na bo xamni mag waji dañu muju xulo hmm waji hmm. dafa ne ci bir keur far grand frère am hmm Tak jabar indi ci bir kër grand frère am mhm. grand frère bi am jabar mhm. neena ma ci waxam munima sama jabaru grand frère frère bi day farantu mon mhm. ko am nga ci loola leer mun ma waw parce sam ben copain copain lay gennal dem na ba ci bir kër gis ko ci bir néeg bank nangam nangam man ko no def mun ma dama dem wax ko sama grand frère bi ñu ma sama grand frère bi ñu top ko ba ami preuve man ko yow nit ko bon nga yow est ce xam nga lu sa jabar nekke yow biñ ko xamee soo doon nit ko baax yow. Hmm. da ngay woo sa jabaru grand frère. génne ko ci waxtaan ak moom génne ko ci te sa frère du ko yëg. Hmm. yow su ne nii sa frère. yow boole nga ko est-ce que taxul sëy bi tas ndaw saa ngi ci kër gi say ba léegi. Hmm. demul fenn. sa grand frère moom la nopp xale bi la nopp même su fekkee day def loolu. mais sa rôle moo nekkoon nga jéem a gérer affaire bi. yow nga gérer ko. fexe ko ci génne. fexe koo yedd fexe koo kii ko defar ko defar ko ba mu affaire yi net. daan ni ko yow est-ce que xamul sa